parce que man li may wax chaque jour mooy que ni Macky Sall euh, xamul boppam parce que ñàkk xam sa bopp mooy li sama sëriñ doon wax naan nga romb ay nit ñu lay tàcc di la fal nga romb ñu lay sànni ay xeer est-ce que yow waroo xalaataat sa bopp ñii moo doon tàcc ñoo lay sànni ay xeer loolu kay mooy pare nga parce que fi nga daan jaar ñu lay tàcc nga fay jaar ñuy ubbi yoon nga dem ba bu mu fa wootee sañoo fa ñëw parce que sañoo wul ñëw judd caare ko en vérité loolu mooy wax donc moo tax may félicité bu baax a baax waa Pastef Djidah Thiaroye Kaw parce que xam na leen xam na xamoon na bu mu ñëwee lim bi mën a fekk lépp la xamoon moo tax dafa daw combat kenn du ko jiite ba pare di ko dénkaane président Ousmane Sonko combat am dénkaane wu ci kanam lay dox démb gis nañ ko parcelle tey gis nañ ko HLM suba nañ ko gis feneen ginnaaw suba nañ ko gis feneen loolu mooy góor mais si tu es président de la république yow nga am benn capacité boo xam ne mën nga gérer réew nga dem jiite ab parti politique en tant que président parti politique mën nga yónnee ay nit pour ñu wax la ñooy can yaay candidat mais si tu es homme yow en tant que candidat yaay génn nga ne candidat man musuma gis bi am Sénégal instant bi mais man mbuxat laa fi gis ak tapet bu rëy ànd ak ay tapet waa Benno Bokk Yaakaar ñiy daw kan ngeen mës a gis ci àddina meeting buy tax 18h30 fii la am dina caaree ko parce que mi ngi naan buy timis rek ñu ngi dóor ñuy daanu ñu jël seen i daal di daw kon franchement fii combat amu fi non combat amu fi booy xeex day xeex ku nangoo taxaw mais koo xam ne day yónnee li ñu faral di def moo gën a ñaw yàgg naa leen wax ni président Benno Bokk Yaakaar bii amul fit président de la république bii démolisseur des des des institutions la. wax naa leen ko ci assemblée nee naa leen kii c'est le véritable démolisseur des institutions amul benn institution bu baax Sénégal dem leen 20 milliards pour benn assemblée nationale on n'est que 165 députés ak benn personnel 20 milliards loolu lañ ko mën expliquer ay nit boobu jamono nit ñaa ngi dee ci àll bi man sama bureau boo ñëwee sans demande yow gis 90 yi. presque wàllu santé la monsieur le maire damay faju ji monsieur le maire damaa war a def dialyse monsieur le maire damaa am cancer amu fu ma fajoo loolu moo am Sénégal c'est ça le problème c'est-à-dire le gars ne gère pas le problème des Sénégalais géré wul seen problème te comme géré wul seen problème ñun nag nañ géré problème am parce que tamit ñu ko arranger mu ñuy déranger arranger ko mooy ñu jekk ko 2021 lépp mënoon a xew askan bi jóg na ko da ngay génn palais bi ñu ñaanal ko ba mu dellu si waat loolu ku la ko war a defar kay nga war a am ngor nag teg mbir yi ci yoon ñu ànd dox mais jàpp naa ni loolu ba léegi dalu xelam pexeem yépp mooy na waa ji dem dossier bu mu indi su ubbee xool du sotti mu indi beneen dossier bu mu indi su ubbee xool mu sotti beneen moo tax gars yi ne ko bul ko jéem wax nañ ko bul ko jéem bul ko jéem bul ko jéem ba tàyyi mu ne def koy jéem su ko jéemee nag du eggale mandat lu leer laa leen wax parce dañ ko ni li ñu lay wax mooy boo jéemee li nga jéemoon ci Karim wala ci Khalifa bis boo ko tàntee ci Ousmane Sonko teg ko loxo deux jours nga génn palais bi incha allah dara du la ko téye parce que dañoo joxe suñu bakkan joxe suñu dund ngir Sénégal boo xam ne ñooy tànnal suñu bopp suñu président dem nañ fi élection yu nekk mu mënuñoo fexe ba tànn suñu président chaque jour soit yaa fi sës soit euh, dañ laa positionné looloo fi am. bi yoon sénégal yi dañoo bëgg tànn seen président te sénégalais yi laay ñaan ñu am mat gu leen may ñu tànn seen président président Sonko day jongante kese comme yeneen yi mais kii mën ma gagné ki ci warul bokk moo tax su ma déggee patriote naan non président Ousmane Sonko day bokk man ree la may def waa ji bokk la ñu war a wax dañoo war a wax Macky Sall yow doo bokk ci élection yi wala boo ci bokkee lu fi am yow la naa la wax nag stratégie Macky Sall ñaar la soo laalee Sonko sa nguur soo dee damaa bëgg troisième mandat su nguur daanu léegi say stratégie mooy lan naa taal dëkk bi mu nekk en guerre comme ça ma mën a wax ci kaw naan dëkk baa ngi waaj a daanu kon bàyyi leen ma téye ko ak sama benn loxo kenn xeex fi yow yaa bëgg xeex te xeex bi yow nangu jiitu ci kanam da ngaa bëgg a yónnee combat kenn du ko yónnee ba pare su la waxee léegi lu sa pexe nga ne damay utiliser justice damay utiliser force de sécurité et de défense yi pour ñoom ñu dal ci kaw askan bi bañ leen justice ba léegi am na ñu diiñ ñu fa nekk nañu bañ nañu jóg jël micro yi jël rajo yi wax seen nit ñi nga xamee ne dañoo nekk seen biir nekk nit ñi bon di yàq seen liggéey ñu dénigrer leen je pense que loolu mooy première recommandation bi deuxième recommandation mooy force de défense et de sécurité yi yéen Sénégal armée Sénégal mooy armée bi ñu gën a naw ci Sénégal ci àddina bi damaa yaakaar ne Macky Sall comprendre comprendre wul ne yéen doo leen musul dal ci seen kaw peuple comprendre leen yéen buy moom ngeen di for yóbbu ba fële te loolu xamu ko te loolu da ko war a xam nag dafa war a xam ni force de défense et sécurité yi suñuy rakk lañ suñuy mag lañ suñuy nijaay lañ suñuy papa lañ suñuy yaay lañ ñoo bokk di dëkk ci ñaar yooyu la yaakaar nga nekk góor candidat Macky Sall nekkal góor génnal nga wax Sénégalais yi dama bëgg nga bàyyi sa yónnee bi tey boo yónnee député suba nga yónni DG ginnaaw suba nga yónni ministre fii Amadou Ba nga fi mujjee yónni mu naan waaw ñun kay Macky Sall lañ bëgg ah, xam naa ni bon ñu nag moom ren déwén du wax candidat la yéen ay ragal ngeen ay tapet ngeen li nekk fii nag problème la mënoo jóge Pastef nekk maire Djiddah Thiaroye Kaw jaarul Pastef nga dem ba ci biir li fi am laa leen wax de ah, nga gis ni ah. discours bi dafa commencé tàng nga naan gars yi man kat ba may dugg di taxawal Pastef damaa jàppoon ni dañuy négocier rek di dem mhm. boobu xamuñu woon président Sonko mooy kan di nga dénk nit ànd ak moom yaakaar ni rek ni nga mel la mel mais dama ne tous les fonctionnaires milliardaires ne méritent rien la prison mënu ñoo bàyyi ay fonctionnaires milliardaires ay fonctionnaires millionnaires ñu taxawaalu ci dëkk bi yor pale bi yor mbedd yi yor institution yi ñu jël nit ñu baax ñu yóbbu leen fële si kaso loolu mënut a nekk loolu les Sénégalais ne l'accepteront pas donc loolu moo fi nekk naan na yolom na baax toog ba mu neex la euh, ay élections jub si en deux mille deux mille quatorze deux mille quatorze ñu ngi créé parti bi 6 mois après mu ñëw ne est ce que am ngeen récépissé ñu ne ko non ñun am ñu récépissé par récépissé bi génnagul le maire de Djiddah Thiaroye Kaw mu ne bon moom garaawul quoi moom récépissé bi la soxla woon ñu ne ko non récépissé bi génnagul donc ça veut dire kooku nguur rek moo ko ñor ñu dem ñaar ñett discours bi métti mu ne ma damaa am carrière rocceeku carrière mooy lan gëmoo Sénégal gëmoo Sénégal te loolu fi la yu leer lañ ci am doo ko weddi mukk doo bi nga xam ne nangoo mett lu yomb ngay gis joxante ay weccet jënd ay nit loolu lañ nga gis ñun xeex lañ bëgg pour yor réew mi nga dem ba créer sa parti ñëpp yaakaar ni def ñun banlieue dañ ñoo trahir parce que on pensait la banlieue am na jeune boo xam ni taxawal na parti ci am na ambition jëli réew mi loo ñuy fayee jaay sa am jaay sa am jaay sa am au diable tu le paieras très cher kii le paiera très cher parce que en réalité gat sa gat sa lay doon fii ci biir dëkk bi loo leen pare pare nañ ko du ñu arrière du ñu reculer du ñu dem ginnaaw li may wax nag ñi ngi préparé Mbàkke ñi ngi woo partenaires yëpp nañ fa teew mais li ma gën a ñor mooy dafa am lu am Sénégal Sénégal yëpp di ko seetaan mooy saak man damaa nekkoon am dalaay fële ca Mali te Guinée ma xool anam gi ñu tëraloo woon Cellou Dalein jàlloo barricade ko di ko barricade di ko barricade ba élection yi bu mu jotee ñetti weer demul bokk élection ñetti weer avant génnul këram danoon sax ñaan di saraxu pour ay médecin di ko fekk ci biir këram pour mun ko faj ñuy woote muy woote ci biir këram commission inter comité international pour ñoo dimbali ko génne ko ah non Macky Sall li nga commencé def exactement loolu laa gisoon fële j'appelle les patriotes ces barrages là il faut les faire sauter il n'est kon accepte que le président Sonko soit emprisonné dans sa maison avec sa famille et se amis on ne l'acceptera pas ñëpp munoo leen convoqué Mbaye Niang gunge ko dox ndànk jaar ci mbedd yi ko ñoom dara nekk ko fa ngeen convoqué Ousmane dem baale kër loolu mooy lan jusqu'à quand non loolu Sénégal yi ñoo ko war a bañ maa ngi woo bépp Sénégalais waxuma ay patriotes waxuma waa Pastef le 16 la le 14 nañ commencé fanaan le 15 ku fa bëgg a barricade nga jaar suñu kaw jël su ñu deret jël ñu bakkan dox fa jaar mais incha allah au septembre le 14 et le 15 si vous merci beaucoup.